mooy bugg a jaxase nit ñi ci wàllum diine wàllum waaso wàllum xeet wàllum région mooy li gën a danger te loolu dara waral ko lu dul bugg a toog ci nguur rek may feddali sénégalais ni procureur baaxul ak ni ma ko xamee moom xam na ni moo tax xale yi gis naa bi muy wax ñuy ñuy commenté naan ko yow bu yóbbu mun ngaa dem naan ndox ndax woro moom ci boppam diggante ak boroom xam na ni waxul dëgg kilifa yi muy essayer manipuler kilifa diine yooyu xam nañ ne moom waxul dëgg Sénégal yi koy déglu yëpp xam nañ ne waxul dëgg àdduna bi yëpp xam nañ ne waxul dëgg waa lii lan moo ko jar ci àdduna moo tax ñu dellu di woo Sénégalais yëpp nag suñu plan d'action bi ñu tëraloon waxoon nañ leen ni fi mu toll nii tembe autorisation ñàkk autorisation suñu nee dañuy marche dinañu marche déposé nañ ci territoire bi yëpp am na dégg naa fu ñu nangu am na fu ñu bañ rawatina ndakaaru gi may wax waa ndakaaru ni ka dinañu manifester bu soobee yàlla le 3 dinañ manifester le 29 muy suba dinañ manifester le 30 muy gannaaw ëllëg dinañ manifester le 3 incha allah kenn mënuñoo boole kenn wax naa leen ko léegi. la ñuy manifester xeex suñuy droit ak suñuy àq Macky li ko tere ne fi mu ne nii mooy défilé 4 avril bëgg na ñëpp ne cell ba moom mun a def défilé bu rëy rëy rëy te lim ci jublu mooy gën a nappaat Sénégalais won leen ni jënd naa ay ngannaay yu bëree bëri bëri ay char de combat ay mété ay lëli ay lëli défilé ba kenn toppale si ndax fête de la nation ñun ci nation bi lañu bokk waaye calendrier Macky du yóbbu suñu calendrier man mii dañ maa convoqué gannaaw suba ci tribunal calendrier bi changé wuñu ko pourquoi ñu ñuy changé suñu calendrier ci leneen ak leneen moo tax ma ne nit ñi bu ñu sàggan ba Macky Sall am lu mu bëgg na ñëpp génn massivement na affaire yi gën a tar dañu ne manifestation pacifique jàmm lañu ñu woote am nañu droit génn dox parce que constitution bi moo ko bind bu ko Macky Sall buggee tere nit ñi nag lépp lu am ci loo xam ne dina indi xëccoo dina indi pëccëxoo Macky Sall ak polisam ak gendarmerie ñoo koy indi lii muy def ni nag foog ni mën na fees bëtu nit ñi may dalal si xelu Sénégalais yi Macky Sall prison yi mënul arrêté sax 2000 Sénégalais yóbbu leen prison fi ne nii prison yi fees na lii mu jël jamono ji naan ay bracelet électronique di ko testé ci waa Pastef yi te li ciy jublu waayam tam mooy fexe ba wane isolé na Pastef may wax ni mënoo fexe ba isolé Pastef ndax Pastef dafa ànd ak Sénégalais yi d'abord dafa ànd ak askanu Sénégal askanu Sénégal moo porté Pastef ci ci boppam waaye Pastef dafa ànd ak opposition bi ñu ànd di xeex li ñuy xeex def benn say moo tax mënoo muusa ki waane ba isolé Pastef bugg gëmloon ni Pastef mooy parti bu violent mooy parti bu fippu déedéet dafa fekk Pastef nga singali moo tax Pastef taxaw jàkkaarloog yow waaye opposition bi yépp ñoo ànd tey fas yéene jeexal nguuru makisal kon lii la ñu bëggoon a waxtaan ak yéen ci lu gàtt di wax tamit ni ndaw ñi bu affaire bi dem ba yóbbu leen ba ngeen fàtte dem bindu ji ci liste électorale yi na ñëpp dem bindu ci liste électorale yi na ñëpp dem bindu ci liste électorale yi parce que loolu moo leen di jox ngànnaay gi ngeen di xeexee ba su élection ba ñu mun fa jëlee Macky Sall wala candidat ba fi toog ndax moom amul droit nekk candidat ñu duma ko dès le premier tour ñu abal ñu may réew mi jàmm ak afiya ñu defar réew mi may daaneel nag ci dalal xelu ñëpp damay gis léeg-léeg ñu bind ñu naan euh, euh, Sonko dañ ko euh, ñi ko wër ñëpp dañ leen a isole Sonko wéet na Pastef la ñu bëgg a sonk Pastef kenn mënulu ko dara gannaaw yàlla Pastef kenn mënulu ko dara gannaaw mar ay at a ngi ni Macky a ngi jéem lu tey jii nga xam ne fukki weer moo des ci mandaam la Macky Sall di mënal Pastef lu mu ko mënul woon démb fileeg Ousmane sonk ngi dund yor bakkan bu soobee yàlla nañu xam ni Pastef kenn mënulu ko dara kon ñu ngi leen di gërëm leen sant di leen wax ñu gën a yokk taxawaay bi gën a yokk ndëgërlaay bi parce que nag xeex bi dañ koy gañe de te gañe nañ ko ba noppi wasalaam.